waaw Seydina Issa Laye Diop le président du 12e Gaïndé notre présence ah, notre présence aujourd'hui se justifie dans le cadre régalien de la des missions du 12e Gaïndé qui au-delà de se mobiliser derrière toutes les économies du Sénégal participe aussi à toute forme de mobilisation sociale allant dans le sens d'accompagner le Sénégal dans tous ses combats au-delà du combat sportif éducatif, aujourd'hui c'est la santé. Donc cet acte, c'est un acte noble, certes, mais s'inscrit dans la mission régalienne des activités du 12e Ghana. Aujourd'hui, c'est la commission médicale qui a organisé cette activité à la veille de la journée mondiale du donneur de sang. Nous n'en sommes pas à notre première parce que tout le monde que vous voyez ici ont leur carte de donneur de sang. Maintenant, aujourd'hui, il est évident que notre présence, c'est une réponse à l'appel de la nation. Cette nation qui a besoin de ses fils. Et le deuxième Gaïnde, chaque fois qu'il y a le drapeau national, le deuxième Gaïnde est là. Et nous en appelons au sens patriotique de tous les Sénégalais de venir répondre à cet appel, faire un don de son sang pour sauver des vies. En Wolof. waaw tey suñu taxawaay fii taxawaayu bu yanu maanaa la ndax ku xam douzième gaynde xam ni lii muy def dafa bokk ci ay mission mission sport mooy sunu mission régalienne waaye du loolu kese dafa bokk ci loolu accompagner Sénégal ci combat am yëpp yu muy def muy sport muy éducation muy santé tey commission médicale bi ñoo organiser activité bi pour mën a répondre woote réew mi ndax réew mi moo soxla ay doomam réew mi ñoo soxla ay doomam taxawu leen pour joxe si seen deret pour mën a sauver ay vi ñun nag suñu bàkk mooy sama ñax sama deret pour sama réew moo tax tey suñu taxawaay ñëw fii mais du première fois ndax ñun ñi nga gis ñëpp kenn ku ci nekk am na sa carte d'honneur de sang donc tey mission bi mission normale la bu noble la waaye mission la boo xam ne ni ici buñ def la ak volonté ak désintéressement total. deuxième gaynde day def chaque quatre mois mu def benn don de sang donc activité bi nii activité yoo xam ne dafay am ci année bi yëpp continuellement non bii ñu ngi suñu sixième édition wala sept donc loolu dafa am solo loolu bokkul nag ñi nga xam ne ñun ñi kenn ku ci nekk di nga def say activité personnelle ca fa nga dëkk mais tey ñi chef de cellule yëpp ñoo ñëw répondre à l'appel non chaque quatre mois da nga koy tourné am na bu mu defoon Demba Diop am na bu mu defoon fii am na yu defoon aussi ci yeneen quartier mais chaque quatre mois dañ koy dañ koy def léegi nag dafay dépendre ci commission médical bi fi muy xalaate ni foofu la gën a baaxee ñi ñu defee ko foofu mais tey dañoo wax ñun ñëpp tey na daje fii pour def ko fii waaw mais ñun dañoo bokk ci réew mi juddoo fi màggal fi fekk fi baax baax fekk ñu fi te li ñu def nii avantage bi ci nekk mooy xamoo koo defal ki koy jëriñoo xamu la waaye ñun ñi ko def kenn ku ci nekk mën na kaa jëriñoowaat donc defal lii defal sa bopp la rek ba pare nag ñu nekk ci réew mi bu réew mi soxlaa ay doomam ñu dañoo war a taxaw ndax ñun ci réew mi lañ bokk waaw. Le professeur Salou Diop directeur du Centre national de transfusion sanguine. Voilà, vos impressions par rapport du don de sang. Euh, Aujourd'hui, les Sénégalais ont répondu massivement à cet appel euh, du SADES. Vos impressions Alors, c'est la journée mondiale du donneur de sang, comme tous les juin. C'est une journée qui est maintenant célébrée depuis une douzaine d'années. C'est une journée qui a été euh, euh, créé avec euh, l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi les associations de donneurs de sang et la Fédération internationale des sociétés de transfusion. Euh, C'est pour nous toujours l'occasion de remercier les donneurs de sang. Euh, les vrais héros, ce sont les donneurs de sang. Euh, C'est un acte qui est civique, qui est volontaire, qui est bénévole, Ce sont des jeunes, des moins jeunes, qui ont compris l'impact euh, que leur volontariat peut avoir sur la santé du monde. Et je pense que tous les jours, quand on vient au niveau des sites de collecte, ils sont là depuis 8 heures. Ils ont laissé leurs activités et ils viennent euh, donner 30 minutes de leur vie pour justement euh, aider à sauver des vies. Donc je pense que c'est une journée qui leur est dédiée. Et c'est pour moi l'occasion, au nom du ministre de la Santé, au nom de tout le personnel du centre de transfusion sanguine, mais aussi, je peux le dire, au nom de tous les patients, euh, les remercier pour tout cet élan de générosité. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, il y a eu euh, euh, six associations différentes qui se sont regroupées pour effectuer cette activité. Alors, cela montre aussi que Euh, même si nous passons des moments assez difficiles avec euh, les mesures qui sont prises pour, la, pour lutter contre cette pandémie, cela montre que le don de sang doit continuer. Euh, le don de sang doit continuer parce qu'il y a toujours des malades, toutes les secondes, qui ont besoin de ce liquide précieux pour leur survie. Au moment où je vous parle, il y a certainement des patients, des insuffisants rénaux qui, qui doivent faire leur séance d'hémodialyse Euh, des cancéreux qui, qui doivent prendre le traitement et d'autres malades et qui ont besoin de ce liquide précieux. Donc c'est encore une fois renouvelé mes remerciements et vous dire que le, le, centre de transfusion sanguine a pris et continuera de prendre toutes les dispositions pour vous mettre dans des conditions euh, pour que le don de sang puisse se faire de façon tout à fait sécurisée. Vous avez remarqué, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des jeunes et tous euh, respectent les mesures en portant euh, bien entendu les masques. Le gel hydroalcoolique est, est tout à fait euh, euh, présent et on a aussi euh, essayé de respecter la distanciation en ouvrant plusieurs sites au niveau du centre. Donc je voudrais vous rassurer, pour ceux qui ne sont pas encore venus, que toutes les conditions sont prises pour que le don de sang puisse continuer. Vous l'avez dit, il y a six associations une particularité. Deuxième Gaïndé euh, Je pense que ce pas la première fois que 12e Gaïndé effectue ces dons de sang. Je pense qu'ils sont compris à travers le sport également, euh, le, le, don de sang est euh, un acte de générosité et je pense que tout sportif est généreux et tout sportif également citoyen. Et je pense que ça ne me surprend pas de l'association 12e Gaindé. Et je voudrais aussi en profiter pour remercier M. Tierno Lecomte Sec, qui est le président de l'Association nationale de l'honneur bénévole de ça. C'est l'association qui un peu sous-tend toutes les associations et elle, elle joue un rôle extrêmement important dans la sensibilisation des autres associations pour qu'elles puissent s'impliquer dans le don de sang. Euh, suba mooy le 14 juin 2020 euh, 14 juin nag waa organisation mondiale de la santé ak euh, association yi nga xam ni ñoom ñooy toppatoo mbirum deret ci àddina bi ñoom ñoo ko mettre euh, en place et ñu ngi koy célébrer maintenant depuis plus d'une douzaine d'années donc jour la boo xam ni jour pour remercier ñi maye deret lañ parce que réellement ñi may deret ñooñu ñooy vrai héros yi parce que ñooñu la ñuy ñëw gis ñuy jógee ci seen kër de façon volontaire te kenn fayu leen dara huit heures ñu jógee seen kër Euh, bàyyi seen liggéey ñëw fii ci centre bi ak si yeneen lieux de collecte pour maye deret pour que tout simplement ñu assuré wu malade yi nga xam ne dañuy soxla deret bi ñu mun ko am donc dañu leen di remercier di leen delloo njukkër dama bëggoon au nom du ministre de la santé au nom de tout le personnel du centre de transfusion mais également au nom de tous les patients les remercier et les rendre hommage je voudrais également euh, waaw waaw dama leen doon euh, alo wax ko ci olof <laughs> kon léegi euh, comme ni ngeen ko seetloo tey association yu bëri ñëw nañu fi association yu bëri ñëw nañu fi lu toll si juróom-benn association ñëw nañu pour jàppale ñu pour indi localement ay donneurs de sang loolu nag li muy wane mooy que mbirum maye deret dafa war a continuer malgré situation bi nga xam ni métti na ñu ngi koy vivre euh, mais beneen conséquence situation bi mooy que bi ñu ko seetloo ci bi ñu génnee ci koor gi li amoon ci der bi yëpp dafa wàññeeku woon ba stock jeexoon euh, mais li ñu mobiliser woo war na ni euh, mbirum mayam deret dafa war a continuer parce que malaat yi nga xam ni dañ koy soxla ñu ngi toujours fii ñu ngi xam ni dañuy def ay hémodialyse wala ñi nga xam dañuy am ay cancer ñu leen di traité wala ay opération wala jigéen ñi nga xam ni dañuy wasin di ñàkk deret ñoo ñëpp ñi ngi fi malgré situation wu pandémie donc moyen deret dafa war a continuer te ku ñëw fii aussi dina gis ni disposition yi nga xam ni war nañ ko jël yëpp pour que nit ñi mun a nekk en toute sécurité pour mun a maye deret jël nañ ko comme centre bi yaatu na ubbi nañu ci ay sites de collecte yu bëri ñu am ñun ñi ñi ngi am euh, ñu ngi leen di jox ay masques euh, gel yi également c'est disponible Euh, ñu ngi aussi remercier association yi nga xam ne ñoom non seulement dañu indi ay donneurs mais dañu indi également produit yooyu pour permettre à ce que euh, mayum deret bi ñu def ko dans des conditions yi nga xam ni dafay am ànd kaaraange kaaraange donc maa ngi remercier bu baax di remercier Andobes bu Thierno Leconte Seck di remercier association yi euh, fàttewuma douzième gaynde nga xam ni ñoom ci biir sport bi la ñu yëngatu wante kuy def sport aussi xam nga ni citoyenneté la mooy affaire maye dram c'est pas la première fois ñoom ñuy maye deret donc ñu ngi delloo njukkal association yi merci beaucoup